ñëw ànd ci liggéey bi monsieur le préfet liggéey bi moo di màggalu Mbàkke Kajoor sëñ yi itam mu Seex Sidi Maxtaar moom itam ñëw na ànd ak sëñ Modou Aïssa ñoom Moussa Diop ak presse bi nga xam ne fu ñu nekk ñu ngi topp di ànd ñu ci liggéey bi bis bi nag dañ ci fàttaliku gane àddina Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul Cheikh Mouhamadul Amin mooy ñetteel doomu Cheikhul Khadim bi mu gënee àddina ginnaaw bu sëriñ bi jógee ci dëkk bu sell bii di Mbacke Kajoor ba ñëbbi Mbacke Bawal ba sañc Touba kenn ëmpandewul ni ci dëkk bii la Cheikhul Khadim yeesalawaat sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam du ma wax tarixa ndax sëriñ Touba mosut a wax ne ab tarixa la yoon mosu koo bind fenn itam ñu gis ko. dafa waxoon ngir bi nga xam ne moom la sayyiduna muhammadin alayhi isalaatu wasalaam yoroon ànd ak saxaaba ya moom lay yeesal te xam nga ni yàlla dafa wàcc benn aaya am ci alquraan karim ni yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila yéen ñi nga xam ni da ngeen a gëm yàlla na ngeen yàlla te wasila wasila mooy lépp li jàmm bi jaar ba àgg ci boromam waaye liñ ci gën a xam mooy jàpp xam ni moo la gën a ragal yàlla gën la xam yoon wi tam mën laa tere ba nga am suñu borom bi yàlla wàccee ay boobu saxaaba yi dégg ko xëy ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yàlla day jaayante bi mu wax ngir wut wasila dañu bëgg a jaayanteeg yow te dañoo bëgg suñu jaayanteeg yow nga warloo ñu ci ak aljanna yonent bi ni leen man moom moo àjjana ba ci warul kenn aljanna ak dem sawar moom sawar moom moo waaye suñ borom wàcce waat benn aaya ne axaka yi suñu jaayanteeg yow ci lislaam di xare joxe seen alal ak seen bakkan yàlla nangul na leen dañ ko fay aljanna ne inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna bi loolu amee itam ñu jaayanteeg yonente bi alayhi salaam saxaaba yi yàlla waxaat bi leen laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati jaayante yi nga xam ne saxaaba yi dañoo ñëw jaayante ak yow ci ron nga def suñu borom nangu na ko kon fastabshiru bi bay'ikum lazi bay'atum bihi yéen saxaaba yi li ngeen bëggoon ni ku jébbalu jaayante dem àjjana suñu borom nangu leen kon bëgg leen loolu la sëñ Tuba ñëw doon ko yeesalaat waaye du ab tariixa moo tax mu ne lil Mustafa nawaytu waaye jaddidu sunnatul xalaat wa inni ahmadu diinu siwa islamihi la yuhmadu yi indal ilaahi wa bihi nu lu kon bi sëñ Touba wootee yeesal googu ñu jëkk a jaayanteeg moom fii di ñeent fukki góor Cheikh bi nga xam ne maamam sëñ Adama Gueye moo ci jëkk ci taalibe yi ba man ñeent fukki góor sëriñ bi bàyyi ko fi dem sanc da Darou dem sanc ba Mamour Anta Sali nelawee bi ba amee ñetti fan fii 1888 la Mamour Anta Sali sanc dëkk bi am fi ñetti at daal di génn àddina bi mu génnee àddina sëñ Touba am fi ñetti at. dem ja Jolof jëli sëñ Mbàkke maa ngi suñu Seex Kajoor mi indi ko jox ko daara dara ji mooy Mbàkke gu mag nga xam ni sëñ Tuubaa fa la Maam Mor Anta Saali dëkkoon sëñ Tuubaa nekkoon fa daara ji nekk fa mu jox ko ko naan bi ñibbi Mbàkke Bawol bi mu ñibbee Mbàkke Bawol am fa diir sanc Daaru Salaam bi mu sanc Daaru Salaam dem sanc Tuubaa am Cheikh Mamadou Moustapha ci Daaru Salaam am Cheikh Mamadou Fadal ci Daaru Salaam bi mu sancee Tuubaa 1887 88 yàlla jox ko cheikh moomu leen baara ñooñu jaayante ak moom na saxaaba yi jaayante woon ak yonent bi alayhi salaam ci bis bi bi cheikh moomu leen baara gane àdduna sëriñ leen woo ba mu leen li ngeen doon sàkk ci seen yëpp gan gi ñëw andil na mën ngeen a yeewee ko muy yoo xam ne wax nañ ko ba kon bis bi bisu ndimbal la bisu tawfeex la bisu faj aajo la mooy bis bi cheikh moom leen baara ganee àddina ci Touba al Mahrousa dëkk bi ñu koy defee itam Mamor Anta moo ko sos moo ko sanc bi Lat bàyyi ko Ñoro ba ñibbisi Kajoor ci la ànd ak Mamor Anta mu ñëw sanc dëkk bi di ko fi àtteel di fi jàngale ba fii la génnee àddina Seexul Xadim yóbbu ko deqal kon jaayante gi nga xam ne itam ci la taalibe jaayante ku tedd gi Seexul Xadim ci dëkk bi la amee lépp itam fii la xewee koo gis mu sanc dëkk itam ci dëkk bi la bàyyi ko sànc beneen dëkk kon loolu mooy Mbacke Kajoor mën naa la wax ne la borom Darou Mouhty 1912 la bàyyi ko fii dem sànc Darou Mouhty alaaji maam Cheikh Awa ci la bàyyi ko fii dem sànc Darou Manaan man naa ne maam Cheikh Adama Gueye mi nga xam ne moo njëkk a jébbalu Cheikhul Khadim mi ngi ci armée yi fi la jébbaloo fi la faat fi lañ ko mën naa wax ni taawu Cheikhul Khadim soxna Fatia. fii la gane àddina mën naa laa wax ni euh, sëñ Cheikh Absa bi sëñ Tuubaa mujj gis ci ay doomam fii la gane àddina mën naa laa wax ni la Cheikh Sidi Maxtaar fii la gane àddina kon dëkk la boo xam ni dëkk cosaan la mu nekkoon daara joo xam ne moo ko ànd sa defe daan nga xam ni bari na ci tarixa tijaaniya ak xaadiriya ñoo xam ne ñëw nañ jàng si fii sëñ jaamal sëñ Pir Tafsir Iliman Sakho ñu bëri jaar nañ ci daara ji nga xam ni daanaka boobu ànd seen la ñëw Lat Dior en 1886 avant muy dem Derklé ñëw na fi fekk fi sëñ Touba saafoonteeg moom sëriñ bi ñaanal ko mu soog a dem Derklé kër dëkku cosaan la daara la palais de justice la wér de royaume de Kayor ndax ba mu la àtte sa lii fii la daan àttee lépp li nga xam ne dafa daan àttee ci royaume kon monsieur le préfet foofu mooy Mbacke Kayor bés bi itam mooy loolu. yàlla dogal nag eh, Cheikh Modou Lamine Bara ci ay doomam tàmbalee ci sëñ Modou Bara ba askan ci mujj yëpp. ñoo daan màggal màggalu Mbàkke Kajoor ren la jëkk ay sëtam yor màggal gi incha allahu ci njiitu Cheikh Modou Moustapha bi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Modou Lamine Bara en même temps mooy xalifab Cheikh Sidi Makhtar Mbacke muy loo xam ni itam bu ñu sañoon népp lépp a yokk ndax dañoo wax ni la am kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim àgg ci alhamdulilahi rabbil alamina nag ni si daaw nag bi ñuy def CDD bi suñu jàmbaar ji suñu waajur suñu sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar Mbacké mi ngi fi nga xam ne dimanche bi ñëw incha allahu mooy tombeek ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru olof bi nga xam ne fii fi bàyyeekoon kon ñëpp marché ji ñaanalaat ko yàlla suñu borom yàlla yokk ko xéewal ak leer li mu liggéey lislaam lépp suñu borom fay ko ko bi barakati rasulillahi alayhi salaatu Cheikh Moustapha Goume mii ko fi wutuit ak rakam ñu ñaan yàlla yàggal leen fi ba lépp li nga xam ne sëriñ bi mébatoon na ko ci njaboot gi mébal ko ci dëkk bi mébal ko ci lislaam suñu borom defal ko ko euh, bëgg nañu sëñ wax na ma itam sëñ préfet naa leen wax ni leen dëkki sëriñ Touba yi dëkk sëriñ Touba mën naa koo tàmbalee ci daaru Manaan gi mën naa koo tàmbalee daarul Moxti mën naa koo tàmbalee Touba mën naa ko tàmbalee Njaareem mën naa ko tàmbale dëkk boo xam ni kilifa kenn ci njabootu sëñ tubaab moo ko jiitee ba ci Mbàkke Kajoor gi lu àddina dox dox ak lu moderne moderne ci ndigalu sëriñ bi rek la ñuy dox kilifteef gi du génn mukk kilifteefu ki nga xam ne mooy sëriñ bi te mooy xalif bi loolu bëgg nañ ñëpp xam ko lay dox Touba rek mooy dox Mbàkke Kajoor mooy dox Daaru Moxti mooy dox Daaru Daaru Daarul Manaan Mbàkke Kajoor gi loolu moo fay dox yàlla dafa baaxe nag ñu bañ a jaawale kilifteef ak liggéey jamonoy dox di dox ba Mbacke Kajoor nekk ab commune ni koy Touba nekkee waaye ñu xam ni bañ a fàtte dañuy dellusiwaat toujours di tënku ci négalu sëriñ bi mun ñu koo génn te loolu moo fi am ba àddinay tukki ñu xam xam naa xam ngeen ko yéen ñëpp ndax ay ay taalibe ngeen ay doom ngeen ay jarbaat ngeen waaye ñu xam ni kilifteef yoon wi kilifteef la laaj te kilifteef du fi mas a jóge ba àddinay tukki ñu bëgg état moom xam na ni lépp lu muy dox dina ko jaare ci ki nga xam ne mooy kilifa ak dëkk bi kon yéen yi nga xam ne yéen fi liggéey ngeen bañ a fàtte loolu tënkuwaat ci ak kilif di di ci dellu ndax duñ mas a maye mukk kilifteef daan fi dox bam am ak si Cheikh Mourou Moustapha itam la leen di fi am danañ ko sàmmal loolu incha allah ba kilifteef gi nekk ci loxoom te du ko mas a génn ñu sant bu baax nag ndax dañ daan mbàkke gu mag ak gu ndaw ak euh, pencum sa laaj maam Thierno waaye lépp benn dëkk la lépp Serigne Touba lépp genn bokk la ak ko amu ci ak jooyoo amu ci ak réeroo amu ci ak ñàkk ànd amu ci lépp benn la suñu maam yi ànd bu rafet ba nga xam dañ koo àndan daan diisoo ba tey moo fi wéy sëñ Cheikh Kajoor a ngi nii toog euh, sëñ Lamine a ngi nii toog loolu insha allahu ba àddina tukki moo fi wéy alhaji maam Thierno gis ngeen barki démb bi muy inauguré euh, diggante tawféex ak daru ma naan gis ngeen jëf ju rafet ji ci def du def dara te sëñ Moustapha ñëwul sëñ Sadio Kajoor bi ngi nii lépp luy fi woote wax naa ko léegi sëñ Modou laay ni ko moom de wàll murid saadix la te wama shayna illa bi ma alim na suñu maam la wante waajuram dafa nekkoon murid ànd ak sëñ Baara ak maam Cheikh Awa Balla maam Cheikh Awa sëñ Baara su ma saa génn dëkk bi ba dem daawul toog sëñ Baara. dañ koy dabi ni ko dara xew na ci kër gi maanaam gan am na fi wala lenn dana ana Cheikh Awa Balla ay eh, lu tax ngeen may dab si bu ma kenn dab si dem leen ca moom. <laughs> maam Amar Fall même chose noonu la nekk woon ak sëriñ bi. kon loolu moo am ci suñu diggante ba tey bu kenn dugg ci suñu diggante nag duñ may kenn dugg suñu diggante bu ci kenn dugg kenn xaju ci te ñu delluwaat tënku ci ak kilifteef ak taalibe incha allah préfet